li may wax rek mooy màggalu Touba gi ñu jóge sëñ euh, taxa Bachir di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi wéral ko mm-hmm. projet yi mu am yépp sunu borom defal ko ci tawféex mm-hmm. damay wax ne dafa indi réponse civilisationnelle te ci ci ci ci Serigne Touba la ko jëlee. Mhm. ndax boo xoolee tey jii ba li ñu sonal ci guddi yi ñu toll. ba débat bi nga xamante ni moom moo def fi mu ne nii euh, moo moo sonal Sénégal. Mhm. mooy ndax istratégie bi ñu jëloon ci xeex Covid bi ndax baax na wala baaxul. ñu ci bëri ne dañoo roy rek tubaab yi. bu ñu nee confinement ñu ne confinement bu ñu nee état ñu ne état d'urgence. bu ñu nee nangam ba ba ci distanciation sociale bi ñu doon wax. ñun dañu wax ne loolu dëppoowul ak sunu aada ak sunu cosaan. ndax distanciation sociale soo ko waxee ay tubaab mën naa bañ a sonn ci ñoom mën nañoo bañ a sonn ndax tàmmuñu jaxasoo. bu métti ndax individualisme à l'état pur moom moo fa am. waaye bu fekkee ne da nga ñëw fii nga xamante ni daanaka lépp dañ koy bokk. taqaloo leen bu leen jegante ñu ne est-ce que kon concept bi bi muy ñëw ñun waruñu ko woon a xalaat ba def ci li nga xamante ni moom moo dëppoo ñun ak suñu dund loolu la sëñ taxaa def. ak ngëm gu mat sëkk. ak taxawaay bu mat sëkk. daal stratégie bi stratégie ngeen jël. ñun jàpp ñu ne boobu moo gën. te jamono bu nekk nag sauver na l'essentiel. jamono bu nekk. bi ñu eggee ci tëj jàkka yi gis nga na mu doxale bi ñu eggee ci màggal gi ak tout sa que cela représente gis nga it na nga xamante noonu la ci taxawee beneen euh, solution beneen kii bi nga xamante ni indi na ko ci approche bi ci biir màggal gi ñu waxtaan ci lu bari bokk na ci université bi nga xamante ni moom moo ngi koy moo ngi koy moo ngi koy moo ngi koy taxawal fi mu ne ndax loolu dina dina dafay expliquer jotaay bi ndax jotaay bi réponse la tamit ci difficulté bi ñu am léegi di ci di waxtaan ndax les technologie de l'information et de la communication ku ku gars yi xam lool moom moo ko bind muy Dominique Volton boroom xam-xam la dafa wax ne léegi technologie de l'information dafa wax dafa bind benn livre tudde ko McLuhan ne répond plus McLuhan moom mooy chercheur canadien boobu nga xamante ni dafa waxoon ne léegi comme technologie de l'information et de la communication am na àdduna mhm. bi dafay nekk village planétaire léegi daal lu xewandoo ñëpp ko yëgandoo ñëpp dinañ gën a jëflante dinañ gën a saafonte Dominique Vilton toogaat Volton toogaat lu yàgg bind beneen téere daal di bind McLuhan ne répond plus mhm. ñu ne ko lan moo tax nga bind téere bi mu ne ndax bi technologie yi bare dafa gis ne nit ñi sax léegi dinañ toog ci jotaay man ak sëñ abi bu mën nañoo joxante rendez bu dem ci restaurant ba mhm. waaye bu ñu eggee ci restaurant ba day nekk téléphone am ma nekk sama téléphone ba du waxtaan mhm. donc instance de discussion yi mhm. ak de dialogue gi dañuy manqué lu bari loolu nag su amee yéen moom ngeen recréer nii loolu tamit beneen réponse la boo xamante ni cela veut dire que am nañ nécessité di waxtaanee li nga xamante ni moom la ñu am te Serigne Touba nekk ci koo xamante ni ni nga ko waxee wax dëgg mën naa defar suñuy guddi ak suñuy bëccëg defar suñu tey ak suñu ëllëg ci lépp li nga xamante ni indi na ko ci kaw suuf te suñu borom subhaanahu wa taala daal di ko koy joxoon ngir mu ñëw liggéey ko ci par rapport ak thème bi muy kenn du Serigne Touba sëñ Cheikh Mbacke euh, Gaynde ma da daan tukki lu bari tukki ba ñëw ci benn tukkeem sëñ Fallou daal di ne ko Ahmadou xanaa sunu waa ji de gisoo fenn ku mel moom sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ne ko Mbacke gisuma fenn ku mel ni yow. gisuma fenn ku mel yow. waaw sëñ da ne ko. Ahmadou xanaa sunu waa ji de gisoo fenn ku mel ni moom ndax tukki yi bari na. Mhm. mu ne ko waaw Mbacke gisuñu fenn ku mel ni yow. mooy mooy lii sëñ Gana doon wax ne hors série la. hors série wala hors classe <laughs> waaw donc loolu nekk damay dañ taw feex boo xamante ni. Mhm. Euh, sunu borom defal nañu ko. Mhm. bu fekkee nag sunu jëmm yi nga xamante ni euh, il faut que ñu taxaw ci. <clears throat> xam kenn ku ci nekk da ngay xam sa bopp. xam mhm. lii la sunu borom defal. te abreuvoir bi ñu am mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. dëgg la sunu borom seede na keroog bi ma demee bi ma njëkkee wàcc Maroc. dama ne du ma fi génn tey te ziyaari wu ma Cheikh Ahmed Tidiane Chérif te Serigne Touba moo tax ma ziyaari ko keroog ba ma demee ca barab ba sindii di laa fa jàng te moom mii moo ñu bëggloo nitu yàlla yi moom moo ñu bëgguloo lu baax moom moo ñu tamit bëgguloo sunu réew bëgguloo ñu suñu continent waaye moo taxit ñu bëgg am njëriñ ci kaw suuf l'ambition d'être utile ndax pour man ci ambition la yem te li ñuy waxtaane nii yëpp dafay dellu si ci le sens de la commémoration mmh. fàttaliku ban njëriñ la am la mën a am ci sunu quotidien ba dimbali ñu ci ñaar bala may ñëw ci ñaar yi damay wax ci li ma buggoon wax léegi te Cheikh Samba Diarra bi sëñ Njaga doon tudd léegi man moo ma ci dimbali ndax xëy na li tax ñu wooñu ñu fii tey feeñ nañu sunu borom defal nañu tawféex ba ñu feeñ ci liggéeyu Serigne Touba waaye ñun ñoo ciy defaroo ndax Cheikh Samba Diarra Mbaye dafa wax ne bu ma yéem yéem leen ko moom du man maay wax moom mooy ki di wax waxande laa wuñ tëji wax buñ ma tijjee may làmmiñam mm-hmm. donc ku nekk nag dangay xam sa bopp mm-hmm. parce que yow ku nekk boo wéeteeg sa bopp nga déglu sa bopp mm-hmm. di nga xam li nga mën ak li nga mënul say force ak say faiblesse ak say impair ak sa matadi gis li ngay wax nuru loo xamante ni dafay am impact bu positif mel ni day defare mel ni am na leer gu ci nekk loolu da ngay xam ne du yow dafay da xam ne du yow léegi nag kam doon da ngay am ak moom relation boo xamante ni mooy cant ak njukkal. delloo njukkal. Mm-hmm. ñaar yi nga xamante ni jàpp naa ne commémoration daf ñu ciy dimbali te muy dellu ci projet de société bu Serigne Touba bu fekkee ne ci solution la ñuy wax. Mm-hmm. mooy daf ñuy permettre ñu régler ñaar yoo xamante ni bokk na ci li gën a sonal. Mm-hmm. pénc mi. wala espace public. mooy la problématique du vivre ensemble. nan la ñuy def ba wuute ay xalaat. wuute sax ay pas-pasu diine wuute ngëm te mën a seq jotaay ba sauver l'essentiel loolu sëriñ bi daf ñu ci dimbali jàngal ñu ci lu bari euh, sëñ Bachirou indi na ko fu bari ci Minanu Baaxil Xadim egg na sax wax ne kilifay tubaab yi dem na ba bu daan tukki sëriñ bi lay dénk waa këram ci koo xamante ni dañu wax ne dafa nekk résidence surveillée mais mais li nga xamante ni moom moo li nga xamante ni moom moo doy nga xamante ni moom moo doy foofu mooy mooy moom état d'esprit am lu yéeme la te lu mat a jàngale la. mooy su nit nekkee fii ci kaw suuf nekk ci ay xat-xat rek. ñu koy bundu ci lieu de. travail am ak yooyu moo sëñ Abibu mi buntu RTS la ma njëkk a wax ne. an nafu wa duru min ar rahman buntu RTS la ma ko njëkk a waxee. fekk boobu ñu taxaw di waxtaan mitit yi. ak jamono bi ni mu tëddee. waaye fi ne nii da gis ku nekk ci liggéeyukaayam. nee yee dañ ko fay bundu dootul may kenn jàmm. ku nekk mu njortal la lu ñaaw. ba mu yàq sa digganteeg nit ñi donc vivre ensemble bi yow yaa ngi koy yàq. wala nga nekk ak nit ci ci jàpp ne am na ci loo xamante ni yéenewu la ko wala bëggu la wala jàpp nga ne mën na laa lor. Mhm. ba tax nga def ko noonu sëriñ bi moo ñu indil ndimbal ci loolu yëpp. Mhm. waaw ba nga xamante ni mhm. moom ci boppam lim lay jàngal mooy jamono bu nekk nan ngay def bay jëriñ nit ki te doo ko lor nan ngay def même dans une relation ba nga nekk victime bi mu gënal la nga nekk bourreau bi leneen état d'esprit bi ma doon wax mooy lu mu nekk ci xat-xati mosul jàppe boppam prisonnier waaw da sama tukki bi rek. waaw alors que ñële ñoo ngi jàppoon ne dafa nekk dans les liens de la détention donc nan la maintenir wala nan la amee taw feex boobu nga xamante ni. ba ci fiñ ko téyee foofu la gën a amee liberté ba gën a wéyal liggéeyam. loolu tamit nekk jàngat bu doy waar leneen li mooy problématique du vivre ensemble mën nañ ci wax ba suba li tax ma koy waxtaane mooy dafa yëngal. lu baax a baax a baax consensus yi ñuy am yenn saa yi ci biir penc mi. beneen bi mooy la crise identitaire. mooy ni ñu ni nit ki mën a réere boppam. ba daanu ci li Cheikh Hamidou Kane tudde l' aventure ambiguë. mooy nekkatoo yàpp nekkatoo jën. li nga nekkoon fondamentalement bàyyi nga ko. li nga bëgg a doon mënoo ko doon. waaw. li nga mën a doon mënoo ko doon sëriñ bi nag daf ñuy dimbali. ci jamono bu nekk. mu lay fàttali. yow Jibril Fall yow yaay kan fan nga war a teg sa tànk fan nga warul teg sa tànk lan nga war a def lan moo yell ci yow lan moo yellul ci yow. waaw jamono bu nekk mu nekk épée de Damoclès. tawfeex boobu la nekk ci ñun. donc li ma bëgg a wax rek mooy. yitte bi nga xamante ni am nañ ko tey. ndax moom yitte. E-, effectivement rabbi asxaabaka bil himmati. Mm-hmm. moom yitte rek mooy mooy fondement mbiram. waaw itte ju mat sëkk. dëgg la léegi nag damay wax ne himma boobu. Mhm. xit ma rek. moo koy moo koy conforte mhm. waaye da nga koy teg nag ci pas-pas bu sell. Mhm. après nga am pas pastef bu dëgër. dëgg la mbiru sëñ Touba loolu la. te loolu buñ ci eggoon ñu waxtaanee Babul Mouridine bi nga xamante ni nag. man suma waa kër su ma njaboot yëpp foofu la ñu bokk. donc du ma jeexal nag te te santuma euh, góor gi nga xamante ni man moo ma yar moom lañ ma tuddee muy sama maam. nekkoon jàmbaar nekkoon Baye fal xam naa waa jaajaay yi ñuy seetaan yëpp dinañ ko seede. nekkoon nit ku baax lépp mu jox ko Serigne Touba wax na ma ne bi mu demee ci toju xeer bu njëkk ba. ndoka nee na ma bi mu ñib def na fa ñetti weer. changé wul yére. mais nee na ma bi mu ñibbisee nee na ma mag ñi mu fekkoon caajaay bi mu dellusee nga xam mënuñu woon a dem ndax mage. Mhm. yére yi dañ ko xooj di ko naan. Mhm. <laughs> ndeysaan waaw ah, yëre yëre yi mu yóbbu woon ndeysaan waaw wax na ma it wax na ma it yi Chérif Assane njëkk a am Kawsara mhm. nee na ma moom moo ko yenoo caajaay yóbbul ko ko Kawsara mhm. kon tamit li sëñ am abi bu doon wax mhm. amuñu pexe lii mooy sunu domaine de définition ci lañ ñaan yàlla dund ci lañ ñaan yàlla dee ndax sëñ Muntaxa dafa wax lu am solo pour dellu ci thème débat bi dafa wax fii ci Masalik bi projet bi boobu jeexagul mu wax ne keroog sax wax na ko ba tuur ay xéwal mu wax ne sëriñ bi fi ko sunu jàllale ba mu agsi ci moom moo tax muy kenn loolu nag dinaa ko wax waaye du yàq dara noon la ko waxee ndeysaan te loolu li tax mu wax ko mooy boo amee perception boobu kenn ku ci nekk la mu am di nga ko ko yéene te bu aju woon ci yow it nga yokk ko dëgg la sëñ Abibu wax na ne moom Gabon la gëme ne Sëriñ Tuuba kenn la waaye man keroog ba may dem sar saara ngiro ngiro bu métti <laughs> lu ne daj naa ko fa ci laa xam ne daal kenn du moom kenn du moom. dëgg la donc di leen gërëm bu baax di leen sant.